bëgguma jeeg bu capable bëgguma jeeg bu ñeme lu la neex wax lu la neex def bu la sa jëkkër tuddee nga tongul ko witt yéen it jeeg ju ndaw ji ñoom ñu ngi toj dëkk bi ñii mel nañ wow nañ bët jël sa téléphone borom kër du ko liir message première ñàkk respect rek looloo ngi ci sa jëkkër fu mu teg téléphone nga jël ko liir yaa ngay liir message yaa ngay xool fa message jóge bu génnee nga sol sa mbubb topp ci kan moo ci gisul la naqari du yow soo ko gisee borom kër na nga koy def ba mu toog kooku yow yaa koy liggéey ci biir kër gi yow yaay jéem a sonn sa borom kër yàqal ko sa bopp miinal ko sa bopp taxaw ko ci bunt yépp ba fu mu jaaxlee bu gestoo gis la bu liggéeyee wàccee bëgg a yàkkamte su muy dàllam daw ñëw waaye ne ci kër ni faale woo kenn jeggu ndaw ji di liiri message koñanteeg sa jëkkër ci digg mbedd mi fu la nga xeex faak moom numéro boo gis woote ca di kii waaye xale yi jigéen tamit ñu ndaw ñi dañoo féroce ñoo ñoo féroce nag féroce googu ñuy wax ñoo ñoo féroce ndax jeeg bu ci manqué manquant ba jël sa appel bi woo ko naa ko sama jëkkër ndax yow la nekkaloon nga ni ko man la nekkaloon ba mu neex nañ jéem a téye seen borom kër yi sëy du xeex ak kuloo ko kitti kitti fiiru ndox googu dafay jeex sa téléphone jëkkër boo ko respecté amoo benn droit di ko laal gérer sa bopp lijjanti sa sëyu bopp bii di ko toggal ba mu neex tey préparer seen néeg yi ba mu neex di loqati seen armoire yi borom kër yi di ko fëgg fóot ba mu set ransale caleçon yi ngeen ransale suur ba mu neex teg waaw di lal seen dara yu weex tàll di jox seen borom kër yi mu lekk ba suur waaye góor gu liggéey ba wàcc taloo ko sangoo gu defagul dara nga téye ko ko jabatut am na jigéen ñu ñi may coow guddi day rey góor baaxul nga téye góor di ko coowal guddeeg bëccëg mënta lekk mënta naan ba bët set wicc nga di ko bëgg rey lu mu yor la ca poos baa la ñor leneen ñoru la ci moom pour lan loolu bu doxee ba gis keneen foq benn ak ñaar bu ko téye fat ko dañ koy téye de dañ koy téye li ko peere ko sang ko ba mu set di ko aayoo nen ne góor ñu bare ngi tërëf ci mbedd mi seeni jabar teg ñoo ko teg seen bopp parce que ñoo talu seeni borom kër topp ñu seeni borom kër lijjantuñu seeni borom kër bu ñu génnee gis ku leen lijjanti toppatoo leen duñ ca dem góor moo war a am bànneex ci nga teg ko fitna àdduna yàqu àddunaam jépp xale jigéen nañ defaraat seen bopp bu baax te gën a góorgóorlu ci sëy bi sëy du wax ju bari ak takki fere ki taal cuuraay da caa bokk waaye jikko ja lu ci ëpp ma nga ca biir lijjanti leen jikko ja bu waral lan moo waral tasi bari ci digg dëkk bi loolu laa leen di laaj